salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk ñu topp di ñu bàyyi xel ala kulli ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di ndokkeel leen daa defal ci topp ngeen ñu topp di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala defal ñu àdduna ak wa alaaxira ala kulli seen jotaayu ko defal seen mbokk Sëriñ Mamour Sylla Firdawsi Asraar tey ñëw ak yéen ci jotaay bu am solo boo xam ni lañ leen di baaxe serru màgg-màgg moy secret bo xamni ne ay alquran la bo xamni kep ku bëgg ci walu ubbeeku nga defé nonu bëgg wërsëgam yaatu bëgg am ubbeeku ci xaaliss ak alal yi ak wërsëg yàlla itam di yombal ay mbiram dafar ko xabol koku na def bile kafi muy man arada man arada ay yejida risqan waasihan way jël fat wal fidda wal amwal wal arshaq wa taysiirul umuur wal qabul falyakul haazal kayfiya sa tajidu insha allahu taala képp koo xam ne daal bëgg nga am wërsëgu yaato yaatu bëgg am ubbeeku ak xaalis incha allah bu jëfandikoo sir bi yàlla mën na koo def mu am loolu incha allah kon secret moo nekk nii muy da ngay bind solul xaaliha danañ ko leeral baax di wax nag lii yoonu ñaan yàlla la te yoonu mooy xam-xam bi rek la jox mu yoonu sabablu ñaan yàlla sabablu nag moom sabablu rek la tudd ndax nit dana sabablu ci wenn yoon lam sabablu mu am ko ca yoon woowa maneen moroom itam jaan ci jaar ci yoon wi mu jaar sabablu lu mel ni lam sabu lam sabablu te du tax mu am ko ndax loolu sabab sabablu moom eh, eh, dafa war nit ñëpp waaye nag yàlla mooy joxe man ngaa sabablu ba pare te yàlla jox li ñu ñaan nag mooy li ñuy joxe képp ku ci sabablu yàlla jox la loolu la ñuy ñaan incha allah waaye ñoo xam ne suñ borom moo tëral noonu ay mbiram kon day bind sorul xaaliha suratul xaa nag ay fukki aaya la ak benn waaw day bind suratul xaari'a aaya bu mu bind suratul euh, mu bind bada bada kulli aaya mu bind aaya bi dafa aynama tuwallu fa sama wajhullah inna allaha waasi'un alim mu bind ko benn yoon ba euh, aaya ba saaru alxaari'a bi yëpp àgg wax na ne alxaari'a saar yi fukki aaya la ak benn su ko defee nag mu boole ci xaatim murabba bi lii lay sangoo ci fukki fan ak benn yu toftaloo incha allahu taala dañ leen indil xawaatim murabba bi aay bi itam dañ leen ci indil nañ eh, leen ko tënk ko rek ci leeral leen indi ci benn ci stage wala ñaar su ko defee ngir yow mi nga xam ne yaa koy jëfandikoo loolu gën laa dooleel gën laa sawar loon nga ngir nga xam ne lépp rek nuraan yu la incha allah kon balaa ñu indi xaatim bi aay bi xaaral nafti aaya bi muy aaya bi nag bu ko dégg mooy aaya bi dafa aynama tuwallu fa samma wajhullah inna allah waatun alim aaya bi moom lu am solo la ci wàllu wërsëg loolu moom yaakaar naa eh, ñëpp xam ngeen ko incha allah waaye boo xoolee aaya bi adadu nafsi bi daf lay jox mille neuf cent soixante neuf mille neuf cent soixante neuf mooy adadu nafsi aaya bi mille neuf cent soixante neuf nag bokk na ci isxaraaj yi mën a génn ci tënk lillahi jaamihu moo jàpp cent soixante dix neuf soo ko darboo ci onze nga xam ni sirru bii di tax onze am ci solo mooy la ngay jëfandikoo euh, boo ko xoolee onze la mooy saar boo ngay jëfandikoo onze aaya la moo tax sirru bi onze da ci te onze lu lu doy waar ndax moo jàppale bi jëlaat yi <laughs> waaw loolu bëri na lu jàpp waaye loolu da cee gën bi moo tax ma koy faral di wax waaw incha allahu taala su ko defee nag euh, onze yooyu boo ko darboo ci cent soixante-dix nga ko ci onze da ngay am 1969 moo tolloo ak aaya bi def ay nama tuwallu fa sama wajhullah inna allaha waatiyun alim euh, kon loolu doy na ci israaj bi ngin leen xawaatim bi xawaatim bi nag moo nekk nii xawaatimu murabba bi xawaatim bu am solo la aaya bi nag moo ci dem muy 1969 <coughs> foo ko mën di wàcc rek incha allahu taala maa dadu aaya bi moom ngay seen xawaatim bi kon gannaaw bu bindee sortul xaaliha ba'da kulli aya nga dugal fa aynama tawallu fa sama wajhullah inna allaha wasihun alim Buka-buka bu khawatim defee xawaatim bii nag nga jël tal xawaatim bi nag wax na aay bi lañ ko tëggee lii mooy li nga xam ne moom ngay sangoo ci diirub fukki fan ak benn incha taala képp koo sangoo yàlla dina defal ak ubbeeku màgg màgg ci barki alquran barki tur yalla incha allahu taala bu ko yalla nangoo léegi nag balaa ñu euh, jeexal ñu indi leen leeral yu gàtt ndax day am ñuy ñuy suivre ñoo xam ne xawaatim bi niñ koy bindee ci e, e, ordinateur bi niñ koy bindee ci téléphone yi ak ordinateur bi ni koy bindee chiffres e, yi mën naa xaw wuute ñu bëri dañ koy jaawale yaakaar ne xaatim day dem te suñu yéene mooy leeral leen jàngal leen te ki jàngale moom day bëgg lu leer waaye du bëgg di nit ñi di dox ci kaw lëndëm loo xam day lëndëm ci ñoom daal kon ñu wan leen cadre bi ngeen xool ndax chiffre yi 4 bi li njëkk nii mooy 4 boo ngeen gisee def naa ko français ci suuf 4 bi de am ñu koy jaawale léegi buñ ko bu ñu adat xawaati mi ñu indi dañ koy def ak 3 te lii du 3 4 la loolu mooy waral léeg-léeg ma dugal xaatim xawaatim mën naa bañ a damm sax waaye am ñoo xam ne dañuy interpellé nii dafa damm te fekk euh, liñ koy jàppee la boo ko defee itam 6 pour 5 loolu mel ne ab sero noonu du ab sero am na ñu koy jàppe ab sero ab 5 la moo si moo nekk noonu ci suuf 5 bi nekk noonu ci suuf loolu ngeen xamee ko fa ñu gisee ci xadim rek ngeen xam ni du 5 ndax bu dee ci euh, machine yi nga xam ni moom ngay bindee machine yooyu du am yeneen façon bind yi ngay bindee xawaatim ngir bëgg lu gën a jàpp ñu nag moo tax ñuy bindee ci machine yooyu bu ko defee nag tomb bële nag mooy ab sero tomb ba voilà sero baa ngi noonu ci suuf ngeen xool ko bu baax bu ko defee ngeen mën koo xàmmee bañ cee amati benn ñumte ndax it lii day am solo ndax boo ci dee ñumte rek boo boo ko xàmmeewul rek mën nga di bind xaatim di ko dem moo te ko yëg ala laa haalin kon ñu ngi leen ni jégg lu baax di leen jégal leen la jàmm ak tawfeex di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh